وأسلم عليكم بوكي followers ok patriote maa ngi leen di nuyu donc euh, <coughs> def euh, benn appel bu gàtt la muy live bu gàtt di leen ne ngeen partagé ko mënuma ko partagé sax sama téléphone mu ngi fële bëgguma ko jël voilà donc sama gars yi appel bi je lance ça au premier ministre euh, Ousmane Sonko. Je lance ça également à son Excellence, le président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Au lendemain de l'alternance de 2000, la première alternance, nga le Sénégal comme alternance démocratique, le président en exercice qui ki nga xam ne mooy abdu Diouf muy maître Abdoulaye Wade dañ ko fal rek partage leen live bi sama gars yi ba ñu ko falee gest bi mu njëkk a def mooy taal otoom dem seeti yaayu abdu Diouf à Louga booba fekk Sénégal yëpp ak àddina si sëpp ñu ngi toog di xalaat ni Que ñu toll que logiquement logiquement euh, comment dirais-je président de la république euh, nu président élu Abdoulaye Wade dafay ak Abdou Diouf parce que boobu fekk Abdou Diouf sonnal na ko di ko ba

entretenu par ñi a et ça a été un grand geste magnifié par le monde entier et ce geste là a relevé c'est-à-dire l'estime que le monde entier avait pour le président Abdoulaye Wade et le Sénégal premier ministre Ousmane Sonko président Bassirou Diomaye Faye yaa len tollu am responsabilité par devoir pour le Sénégal le devoir historique que nous avons am tay moy ngeen tal sen auto dem nga le général Moussa Fall nga que il était dans l'exercice de ses fonctions il sert l'État il a servi l'État et il sert l'État aujourd'hui il tay boo ko loo ko sante ci lay dox parce que état la c'est son rôle qui lui demande ça bu leen bàyyi kenn yak yeen sen entrée dans l'histoire du Sénégal Ousmane Sonko bul qui ki bind son nom dans l'histoire du Sénégal par des comportements une fois arrivé au pouvoir des comportements qui ne répondent pas à nos us us et coutumes ton devoir en tant que Sénégalais, en tant que meneur d'hommes, en tant que leader Tay, est de t'engouffrer dans la voie tracée par, euh, par euh, Senghor, tracée par Abdoulaye Wade, tracée par Mamadou Dia. yow yaay war a dem général Moussa Fall waxuma la nga ko bureau mais nga ko dans sa famille là où il vit avec ses enfants ses épouses voilà son épouse nga toog ak moom ces traditions bien sénégalaises de chez nous nga indi Sénégal nga nga tëj ñi nga dans votre camp sont en train de rumbandaat et d'attiser la haine d'attiser attiser yenn esprit yi loolu boo ko defee da ngay gën a yëkkati sa bopp gën Sénégal maa le la koy ñaan

dellul Mali dem wax ak ñom dama xamul yow kan ba mëna a euh non c'est pas ça yow yaay kan ba mëna a waxal Sénégal ta petite personne qui ne vaut rien ken xamula yow yaay waxal nga yow yow yaay yaay wax au nom du Sénégal et tu n'es nobody nobody knows you ken xamul yaay kan donc appel bobu man. La Bougon lance taille. à l'aube de la corité, nous fête pardon, xam tout, pardon là. fête après la Pâque des chrétiens quel que soit ce qui s'est passé par ailleurs avant engouffre-toi dans la voie bien sénégalaise du pardon la voie de la réconciliation, la voie de la noblesse, la voie de la grandeur. demal yow yay kilifa Yay kilifa am tay. mais moi, ça m'a... Il y'a am responsabilité historique Il ñaar Y'a une responsabilité historique Le président Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko il y a une histoire di parce que cet homme était sous les, et sous le drapeau. Quel que soit par ailleurs ce que vous pouvez lui reprocher. Et ça, c'est ça qui fait, euh, qui, c'est ça en fait, la marque des grands hommes. On ne vous demande pas de, faire la justice à la place de la justice. Mais on vous demande de vous positionner par rapport à cette jeunesse, à ces jeunes qui vous suivent. Donnez-leur cette leçon-là, enseignez-leur cette leçon-là, montrez-leur cet exemple-là. C'est pour le Sénégal, c'est pour la grandeur de notre nation, c'est pour l'histoire, c'est pour l'enseignement que vous donnez. Mais en tant que NUT, quand je dis humanisme, quand je dis humanité, il y a le mot nité dedans. Humanité, nité. Le, parce que il y a changer le visage qui est là hideux et nous avons besoin de retrouver notre lustre d'antan nos lustres d'antan la magnificence de notre nation la cohésion sociale vous devez travailler vous devez donner des messages forts à ces jeunes là qui sont perdus, qui n'ont pas les éléments qu'il faut pour véritablement appréhender tout ce qui est en train de se passer. C'est à vous de, leur parler. Ousmane, vous avez commencé. Mais vous devez continuer à parler parce que le mal est profond. Vous devez parler, continuer à parler. Ce message que vous allez passer, ce message-là, vous grandira dans l'histoire du Sénégal. L'histoire a déjà retenu votre nom. Mais votre nom sera alors inscrit dans le panthéon, dans les noms de ceux qui feront le panthéon de la nation sénégalaise, si vous allez vers votre grand frère ou papa, le général Moussa Fall, vous le réhabilitez. Vous montrez aux Sénégalais que nous n'avons pas de haine envers ce monsieur-là. Parce que je ne pense pas qu'il ait de la haine pour vous c'est un soldat Baifalo, drapeau bi réconcilier l'armée entre eux bon moi amati ay faction ni faral ni ñi faral kii vous continuer le persévérer waruñu perdurer je suis loin du Sénégal mais mon cœur saigne quand je vois les jeunes qui n'ont encore qui n'ont rien apporté à ce pays en train de déchirer de déchiqueter l'honneur d'un homme dont ils n'ont ni le mérite, ni le courage. Vous ne devez pas vous taire, vous ne devez pas rester apathique. Vous devez aller poser des actes forts pour la réconciliation des fils de ce pays, pour la réconciliation des cadres de ce pays. Parce que je sais que même jusque dans l'administration, les déchirures sont profondes. C'est à vous de réconcilier ce pays-là. Et c'est à vous de poser des actes. Il ne suffit pas de parler de dire que nous vous tendons la main, nous voulons la réconciliation, poser des actes. Cette haine-là ne doit pas perdurer. Elle ne doit pas être entretenue. Elle ne doit pas laisser être laissée, c'est-à-dire en se disant que le temps va guérir les plaies. Oui, mais des actes forts vont guérir les plaies. Et nous en avons besoin. Et vous le savez di n'ai ak di j'ai pas eu le temps de venir mang ak di balou askan di balou ñep di ñaan ñep ngeen venir. di wax ni Ousmane Sonko fay allez marcher sur les voies de la paix Pape Jean-Paul II allez Aksa de à quelques millimètres mortel c'était mortel et les séquelles de cette balle là l'ont suivi jusqu'à sa mort mais on fait que dans sa cellule balcon. c'est ça fait partie de ce qui est fait la grandeur du pape Jean-Paul II aller vers les fils de ce pays avec qui vous aviez des des des, des quiproquos et allez voir le général Moussa ces images-là, pour les jeunes et pour la postérité, méritent que vous taisiez, que ce soit égo ou blessure narcissique ou rancœur avec le Parce que vous aimez le Sénégal. Je n'ai pas, je ne le dis pas pour moi. Vous mais je vous le dis je dis général Moussa pour le Sénégal man pas taxaw ci Adina. comment plainte ko bala nga dem porter te xamni bala yag dina ñew man damay Sénégal buma kenn bal buma kenn jima bal parce que man du ci doxuma ci sama man damay dox ci Sénégal doxuma ci sama des li wax ni pour sama encore une fois je serai la femme la sénégalaise la citoyenne du monde la plus heureuse le jour où je verrai Ousmane Sonko et le général Moussa Fall ensemble parce que j'ai déjà vu le président Bassirou Diomaye Faye et le général Moussa Fall ensemble te tooj bi mu ko toojal ci xol la ko jógee bu won ko ne lii maa ay aw dama la amel parce que yow yaay sama kilifa parce que gawma ni que mënul won baña nek nekk mais il est venu pour marquer que ni sa soumission que yeen yaa ngi di kilifa won len ko ni yeen ay du len gën won len ko ni vous êtes digne de ce Sénégal vous êtes deux jeunes macha allah juddoogu len yalla jox len responsabilité de réconcilier ce pays de parachever ñun bañu ñuy nous ñun bañuy nek xalé xale kenn xamul won né Sénégal amna une goutte de pétrole

man noonu lay def damay dem ba ñu ni que je suis vendu te du ma gis kenn duma wax ak kenn mais dam koy def par amour du Sénégal maintenant c'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui et euh, voilà xam nga xam nga li ma métti mooy li may wax rek góorgóorlu leen bu yeba ñu dama rasis ay Conté Keïta Jaxate ya len fi nek rek di di sam di di suxat en bi pour lan ñun xamuñu en yoyu no dem len ci dem len fele fa ngeen fa ngeen ko dem soxali ko fa ok ñun on est une un pays de paix et de dialogue un pays de ñun en yooyu motax tax ngeen bàyyi ñun moo tax ngeen bàyyi Mali wala Burkina Faso wala yooyu ñew Sénégal donc vous vous n'allez pas nous contaminer dans cette culture de la haine ñi fi tok ñi fi dugg yëpp di ma saaga may woti appel à la paix kenn ki jaxaté la sante kenn ki konte la sante kenen ki kayta pour lan

ethnie voilà, et religion laissez-nous comme ça avec notre fait que notre ñak fayda ñu continuer di waxtaan suñu rew bo lépp di dox man lool la bëggona wax tay maa ngi leen di di leen excellente soirée et bon dogu à ceux qui ne sont pas encore euh, à ce niveau là wala ñi nga xam de bon appétit Yalla na yalla continuer samba Sénégal moi j'appelle à la paix comme d'habitude j'appelle à l'amour comme d'habitude jusqu'à ce que nak me sës ci miiru wis bi bu boobaa ma wëlbatu nekk gaynde ma leen dàq xeex yéen ñëpp gën leen naan kaani yëpp yéen ñëpp quand il le mais dama xam kañ la ñuy tarbiyu senegal kañ la ñuy servir Sénégal ak kañ la ñu war a xeex pour Sénégal instant bi man lu jàmm rek la bëgg ak seen ndam ok te wootewuma boxuma li pour kenn wooma wala kenn jox ma poste lijjantiwuma loolu man poste ministère la bàyyi génn Sénégal wutuma loolu faut muy clair bëgg Sénégal moo tax ma bëgg ngeen am ndam moo tax ma bëgg yëf yi dox moo ma bëgg jàmm am parce que boo nekkee ci jàmm ñun ñu nekk ci jàmm ñun manqué wuñu dara tubaab fakal damaa sonn wax ci Sénégal nattu yàlla la maa ngi leen di gërëm di leen sant bonne soirée te bu leen fàtte cultiver l'amour daf leen di ubbil ay buntu jaajëf gis nga kii muy santati nan moom Mandiang Mandiang Mandiang demal déggoo li ma wax man sénégalais pur yi lay waxal waxuma ak immigré sénégalisé wu à peine sénégalisé ñooñu sénégalais nga gisoo fi benn Diop benn Ndiaye benn Gaye benn Fall bu ciy wax waxu ay benn ay ay ay ay jéeme bu ciy wax lu bon yéen rek la yéen rek ak seen yu bon yi ngeen jëlee ci àll ba te ba tey mënu leen fexe ba teg ci buntu ba bàyyi ko ci frontière bi bo leen yexé Sénégal bayi leen seen jikko yooyu ci frontière bi comme ça vous pouvez vivre avec nous en paix wasalaam. waaw euh, asalaamaaleykum mbokki. Euh, followers ok patriote maa ngi leen di nuyu donc euh, c'est <coughs> euh, ben appel bu gàtt la muy live bu gàtt di partager ne ngeen partagé ko mënuma ko partagé sax sama téléphone mu ngi fële bëgguma me jël voilà donc sama gars appel bi je lance ça au premier ministre euh, Ousmane Sonko. Je lance ça également à son Excellence, le président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye. Au lendemain de l'alternance de 2000, la première alternance, Sénégal comme alternance démocratique, le président en exercice qui a ki nga xam ne mooy abdu Diouf muy maître Abdoulaye Wade dañ ko fal rek partage leen live bi sama gars yi ñu ko falee gest bu mu njëkk a def mooy taal otoom dem seeti yaayu abdu Diouf à Louga booba fekk Sénégal yëpp ak àddina si sëpp ñu ngi toog di xalaat ni fi ñu toll nii euh, fi ñu moment bi ñu toll nii que dafay fayantoo que logiquement logiquement euh, comment dirais-je président de la république euh, nu mu tudd président élu Abdoulaye Wade dafay fayantoo ak Abdou Diouf parce que bu mu fekk Abdou Diouf sonnal na ko di ko tëj di ko tëj ba nga xam ni këram dafa yoroon ça vous le savez faut préparé une valise en teg pour que chaque fois fu nous ko fu ñu que ñëwee appréhender parle. donc pour que ko joxee pouvoir mais li mu njëkk dem chez la famille d'Abdou Diouf chez la maman d'Abdou Diouf, dans dalal xelam dans di désamorcer la bombe qui était entretenu par ñi nga ñoo haine rancœur fayanto et ça a été un grand geste magnifié par le monde entier et ce geste là a relevé c'est-à-dire l'estime que le monde entier avait pour le président Abdoulaye Wade et le Sénégal ci ba ton premier ministre Ousmane Sonko président Bassirou Diomaye Faye yaa Tolu am responsabilité vous, par devoir pour le Sénégal le devoir historique que rien ngeen am tay moy ngeen tal sen auto dem nga le général Moussa Fall nga xamné ne wulé nak mom il était dans l'exercice de ses fonctions il sert l'État il a servi l'État et il sert l'État aujourd'hui il tay ko lo len ko sante ci lay dox parce que Baye état la c'est son rôle qui lui demande ça bu une kenn yak yeen entrée dans l'histoire du Sénégal Ousmane Sonko Bouldon qui ki bind son nom dans l'histoire du Sénégal par des comportements une fois arrivé au pouvoir des comportements qui ne répondent pas à nos us us et coutumes son devoir en tant que Sénégalais, en tant que meneur d'hommes, en tant que leader et de t'engouffrer dans la voie tracée par, euh, par euh, Senghor, tracée par Abdoulaye Wade, tracée par Mamadou Dia. yow yaay wara dem seti général Moussa Fall waxuma la ko bureau mais nga seeti ko dans sa famille là où il vit avec ses enfants ses épouses voilà son épouse nga toog ak moom nga ces traditions bien sénégalaises de chez nous nga indi Sénégal nga nga ñi nga dans votre camp sont en train de rumbandaat et d'attiser la haine D'attiser l'esprit. yenn esprit Lolu boko boo da ngay gëna yëkëti sa bop, gëna yëkëti Sénégal Mang ngi koy ñaan

dellul Mali dem ak ñom dama xamul yow yaay kan ba euh, non c'est pas ça yow yaay kan ba Sénégal ta petite personne qui ne vaut rien ne xamula yow yaay waxal nga oh, wax au nom du Sénégal et tu n'es nobody nobody knows you ken xamul yaay kan donc appel bobu la bougon lance taille. à l'aube de la corité, faites fête pardon, faites tout, pardon là. après la Pâque des chrétiens quel que soit ce qui s'est passé par ailleurs avant engouffre-toi dans la voie bien sénégalaise du pardon la voie de la réconciliation, la voie de la noblesse, la voie de la grandeur. demal yow yay kilifa Yay kilifa am tey mais moi, ça m'a... te y'a am responsabilité historique yéen Ya Y'a am responsabilité historique Le président Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko il y tey yon histoire di parce que cet homme était les et sous le drapeau. Quel que soit par ailleurs ce que vous pouvez lui reprocher. Et ça, c'est ça qui fait, euh, c'est ça en fait, la marque des grands hommes. On ne vous demande pas de, faire la justice à la place de la justice. Mais on vous demande de vous positionner par rapport à cette jeunesse, à ces jeunes qui vous suivent. Donnez-leur cette leçon-là, enseignez-leur cette leçon-là, montrez-leur cet exemple-là. C'est pour le Sénégal, c'est pour la grandeur de notre nation, c'est pour l'histoire, c'est pour l'enseignement que vous donnez. Mais en tant que NIT, quand je dis humanisme, quand je dis humanité, il y a le mot nité dedans. Humanité, nité. parce que y y a changer le visage qui est là, hideux. Et nous avons besoin de retrouver notre lustre d'antan, nos lustres d'antan, la magnificence de notre nation, la cohésion sociale. Vous devez travailler, vous devez donner des messages forts à ces jeunes-là qui sont perdus, qui n'ont pas les éléments qu'il faut pour véritablement appréhender tout ce qui est en train de se passer. C'est à vous de, vous de, leur parler. Ousmane, vous avez commencé. Mais vous devez continuer à parler parce que le mal est profond. Vous devez parler, continuer à parler. Ce message que vous allez passer, ce message-là, vous grandira dans l'histoire du Sénégal. L'histoire a déjà retenu votre nom. Mais votre nom sera alors inscrit dans le panthéon, dans les noms de ceux qui feront le panthéon de la nation sénégalaise, si vous allez vers votre grand frère ou papa, le général Moussa Fall, vous le réhabilitez. Vous montrez aux Sénégalais que nous n'avons pas de haine envers ce monsieur-là. Parce que je ne pense pas qu'il ait de la haine pour vous c'est un soldat Baye drapeau bi réconcilier l'armée entre entre eux Bon moi, amati ay fraction ni faral ni ñi faral kii loolu vous continuer vous persévérer waruñu vous warul perdurer je suis loin du Sénégal mais mon cœur saigne quand je vois les jeunes qui n'ont qui n'ont rien apporté à ce pays en train de déchirer de déchiqueter l'honneur d'un homme dont ils n'ont ni le mérite, ni le courage. Vous ne devez pas vous taire, vous ne devez pas rester apathique. Vous devez aller poser des actes forts pour la réconciliation des fils de ce pays, pour la réconciliation des cadres de ce pays. Parce que je sais que même jusque dans l'administration, les déchirures sont profondes. C'est à vous de réconcilier ce pays-là. Et c'est à vous de poser des actes. Il ne suffit pas de parler de dire que nous vous tendons la main, nous voulons la réconciliation, poser des actes. Cette haine-là ne doit pas perdurer. Elle ne doit pas être entretenue. Elle ne doit pas laisser être laissée, c'est-à-dire en se disant que le temps va guérir les plaies. Oui, mais des actes forts vont guérir les plaies. Et nous en avons besoin. Et vous le savez. Manglindi di balou ak di jégal ñëpp pas mais j'ai pas eu le temps de venir Manglin leen di balou ak di balou askan wi di balou ñëpp di ñaan ñëpp ngeen baal di wax ni Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye allez marcher sur les voies de la paix Pape Jean-Paul II allez Aksa de koo bal Bohamni, à quelques millimètres mortel c'était mortel et les séquelles de cette balle là l'ont suivi jusqu'à sa mort mais donc, on fait que dans sa cellule balco. c'est ça fait partie de ce qui a fait la grandeur du pape Jean-Paul II aller vers les fils de ce pays avec qui vous aviez des des des, des aplanissez et allez voir le général Moussa ces images-là, pour les jeunes et pour la postérité, méritent que vous taisiez, que ce soit ego ou blessure narcissique ou rancœur avec le Parce que vous aimez le Sénégal. Je n'ai pas, je ne le dis pas pour moi mais je vous le dis je dis général Moussa Fall pour le Sénégal man faalewuma képp kuy taxaw ci àddina ku ma ku ma ku ma ku ma def man demal sa plainte téye ko bala nga dem porter ko porter ma ko te xam ni balaa yàgg dinaa ñëw man damay waxtu Sénégal bu ma kenn bal bu ma kenn jéem a bal parce que man du lo ci doxuma ci sama bopp man damay dox ci Sénégal doxuma ci sama bopp li may wax ni waxuma ko pour sama bopp encore une fois je serai la femme la sénégalaise la citoyenne du monde la plus heureuse le jour où je verrai Ousmane Sonko et le général Moussa Fall ensemble parce que j'ai déjà vu le président Bassirou Diomaye Faye et le général Moussa Fall ensemble parce que parce que gawma ni que nous woon bañ a nekk mais il est venu pour marquer que sa soumission que yéen yaa ngi di kilifa won len ko ni yéen ay du len gën won len ko ni vous êtes digne de ce Sénégal vous êtes deux jeunes MashaAllah, du juddoogu len yalla jox len responsabilité de réconcilier ce pays de parachever ñun bañu ñu juddoo ñun bañuy nek xalé xale xamul woon ne Sénégal amna une goutte de pétrole ñun xamuñu ko woon nous yàlla indi yépp indi leen ci moment man du wax loolu ni Ousmane part parce que man dama dem nulle quelque part et très loin moom Fay pour que suñu ñuy parce que fi ñu nekk ñun Sénégal nous comprendre man man position tant que nous ngi def ñu ngi defal Sénégal je serai dans mon coin à les encourager Nous, nous mel noonu doon def gouvernement

fangen fangen fangen ngeen ko dem soxali ko fa ok ñun on est une un pays de paix et de dialogue un pays de ñun en yooyu motax tax ngeen bàyyi ñun moo tax ngeen bayyi Mali wala Burkina Faso wala yooyu ñew Sénégal donc vous vous n'allez pas nous contaminer dans cette culture de la haine ñi fi tok ñi fi dugg yépp di ma saaga te may woti appel à la paix kenn ki jaxaté la sante kenn ki konte la sante kenen ki kayta pour lan bu dul loolu da ngeen gis léegi jàllu lay doon wala ay sant yoo xam ne du ay jonte ay lu ma xamul mais arrêtez de nous amener à la haine xamuñu ko xamuñu ko on ne veut pas de ça on ne pas de haine yow ñëpp jàpp ne ñu dañoo ñàkk fayda waaye ñu baax leen bàyyi suñu ñàkk fayda au moins ça fait amuñu coup d'état amuñu rayante suñu biir amuñu lakkalante lakk ray dagg tojante daggante bopp entre ay ethnie voilà, et religion laissez-nous comme ça avec notre fait que notre ñak fayda ñu continuer di waxtaan suñu rew bo lepp di dox man loolu la bëggona wax tay mang leen di gërëm leen sante excellente soirée et bon dogu à ceux qui ne sont pas encore euh, à ce niveau là wala ñi nga xam ne bon appétit yàlla na yàlla continuer sàmm Sénégal moi j'appelle à la paix comme d'habitude j'appelle à l'amour comme d'habitude jusqu'à ce que nak me sës ma do ci miiru wis bi bu boobaa ma wëlbatu nekk gaynde maa leen dàq xeex yéen ñëpp gën leen naan kaani yëpp yéen ñëpp quand il le mais dama xam kañ lañuy ñuy tarbu yu Sénégal kañ la ñuy servir Sénégal ak kañ la ñu war a xeex pour Sénégal instant bi man lu jàmm rek la bëgg ak seen ndam ok te wootewuma waxuma li pour kenn woo ma wala kenn jox ma poste lijjantiwuma loolu man poste ministère laa bàyyi génn senegal wutuma loolu pour muy clair bëgg Sénégal moo tax ma bëgg ngeen am ndam moo tax ma bëgg yëf yi dox moo ma bëgg jàmm am parce que boo leen nekkee ci jàmm ñun ñu nekk ci jàmm ñun manqué wuñu dara tubaab fakal damaa sonn wax ci Sénégal nattu yàlla la maa ngi leen di gërëm di leen sant bonne soirée te bu leen fàtte cultiver l'amour et daf leen di ubbil ay buntu jaajëf gis nga kii mu ngi santati nan moom manjaan Mandiang Mandiang demal déggoo li ma wax man sénégalais pur yi laay waxal waxuma ak immigré yi sénégalisé wu à peine sénégalisé ñooñu sénégalais nga gisoo fi benn Diop benn Ndiaye benn Gaye benn Fall bu ciy wax waxu ay benn ay ay ay ay jéeme bu ciy wax lu bon yéen rek la yéen rek ak seen yu bon yi ngeen jëlee ci àll ba te ba tey mënu leen fexe ba teg ko ci buntu ba bàyyi ko ci frontière :fra bi boo leen yegg see Sénégal bàyyi leen seen jikko yooyu ci frontière bi